أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tey nekk dars bu njëkk ci ginnaaw bi ñu waree ak léegi ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu nangul nu li wees ci sunu jaamu yàlla ba tey ñu tolloon ci suratul baqara tey ñu war a jël aaya 135 136 137 138 nekk ñeenti aaya yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala lim ñi ciy jàngal mooy ñeenti mbir ci ñeenti aaya yi bi ci njëkk mooy laa hidaayata illa al islaami wala saadata wala kamal illa bil islaam li ñuy njëkk jële ci aaya yi mooy njub amul fenn lu dul ci lislaam kenn mënta jub lu dul nga nekk jullit yoon woo mën a nekk diine boo mën a wootoo mbooloo moo mën a bokk su wuuteeg lislaam rek ci cànkute nga nekk ak réer beneen bi mooy amul lenn lu mat lu dul lislaam amul lenn luy njub lu dul lislaam kooku mooy benn ñaareel mooy al kufru bi rasulin kufru bi kulli rusul weddi benn yonent weddi yonent yépp la faqad kafara alyahud bi isa wa kafara annasara bi muhammad fa asbahu bi zalika kafirin nee na yahud yi dañoo weddi isa nasaraan yi weddi muhammad kenn ku ci nekk ci ñoom boo leen waxee dañ naan la benn yonent laa weddi benn yonent boobu nag saa ko weddee yéeféer nga jullit ñi lan moo tax ñu nekk jullit wa amana almuslimuna bi kulli rusul fa asbahu bi zalika muminin julli ñi ñoom gëm yonent yëpp loolu lan la leen jural mooy ñu nekk way gëm yàlla loolu mooy ñaareel njàng bu ñuy jëlee ci aaya yi ñetteel mooy laa yazaalu lyahud wa nasara fi aadaai lil islaam wa xarbin ala almuslimin walmuslimuna yakfihim allahu taala sharrahum nee na yahud yi ak nasaraan yi duñu deñ di xeex jullit yi duñu dem di xeex lislaam waaye jullit ñi chaque jour yàlla moo leen ci génne ndax yàlla moo méngoo seen mbir moom allah subhanahu wa taala mu ne su ko defee jullit ñooñu nga xam ne yahudi ak nasaraan yi ñu ngi xeex lislaam di xeex jullit ñi waaye jullit ñi yàlla di leen aar tabaraka wa taala waaye mata kañ la leen yàlla di défendre ñoom jullit yi kañ la leen yàlla di aar iza hum istaqaamu ala al islaam aqidatan wa ibadatan wa xuluqan wa adaban wa hukman soo déggee yahudi ak nasaraan yi ñi ñuy xeex ñun jullit ñi yàlla mu ngi nii aar yàlla mu ngi ñuy protéger na fekk lii nekk ci ñun bi ci njëkk mooy ñu jub ci lislaam ñun ñu nekk ci lislaam sax ci aqidatan ci pas-pas bi nañu nekk ci lislaam ñu sax ci aqidatan pas-pas bi wa ibadatan ak jaamu gi wa xulqan am jikko lislaam wa adaban am tegginu lislaam wa hukman di àttewoo lislaam ñaata mbir la pas-pas jaamu yàlla jikko teggin ak attewoo yii buñ ci bàyyee benn yahud ak nasaraan yi bu ñu xeexee ak ñoom yàlla dañuy seetaan parce que day fekk ni ñun sunu lislaam matul parce que lislaam lii la mooy ki wax ne man jullit laa nañ xool pas-pasam parce que dëppoo naag pas-pas bi yonent yàlla Muhammad indi woon ñaareel bi mooy nañu xool ibada est ce que moom mi ngi jaamu yàlla comme ni Muhammad jaamoo woon yàlla ñetteel mooy nañu xool est ce que am na jikko lislaam ñeenteel bi mooy nañu xool est ce que am na tegginu lislaam juróomeel mooy nañu xool est ce que mi ngi àttewoo lislaam su jamono bii su amee rek yàlla aar nu mais bu fekkee ne lii am na lu ci manqué dañuy am jafe-jafe ñeenteel mooy alwaajib ala man daxala fi lislaami an yaxtasila dafa war képp kuy tuub di dugg ci lislaam mooy dañ lay sànq da ngay sangu ki lay tuubloo wala ñi lay tuubloo bu dee ca jàkka jala wala ca mbooloo lislaam ba dañ lay yóbbu avant tout sang la ba nga set sang boobu nag comme ni ñuy sangoo janaaba is hada min sibratullahi taala dafa loolu da ko bokk ci cuubu yàlla sharia loolu la tëral kuy sangu kuy dugg ci lislaam foog ñu sang la waaye sang bi dafa wuuteeg bi nasaraan yi di def bu ñu amee liir nasaraan yi bu ñu amee doom mu nekk liir dañ koy jël sóob ko ci ndox am na nuñ koy tuddee waaye bii moom dafa wuuteeg lislaam bii tuub la pour sobe bi nit ki àndaloon salte yi li mu taqoon mu daal di koy tuub jéggalu yàlla tabaraka wa taala mu doog a mën a dugg ci lislaam mais ñoom dañ naan la bu ñu la sóobee ci ndox mi génne la set nga wicc jong sax dootoo ko defeti moo tax duñ jong ñun suñu bos ak ñoom seen bos du benn kon mbokk yi ñeenti njàngin yi wala ñeenti déggin yi wala ñeenti mbir yi moom la ñuy jëlee ci ñeenti aaya yi nekk sunu kanam aaya yooyu mooy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون برمي تبارك وتعالى من وقالوا وخنن ين يوخ يهودي yahud yi ñu ne yéen jullit yi kuunu nekk leen huudan ay yahud aw nasaara wala nga nekk ay chrétien tax te du ngeen jub yéen jullit ñi da ngeen a bëgg a baax jullit ñi ne waaw ñu ne kaay leen ngeen nekk yahud wala nasaara ngeen jub ngeen baax est-ce que loolu mooy tax nit baax nga nekk yahud mooy tax nga baax wala nga nekk nasaara mooy tax nga nekk nga baax nasaraan yi nee nañ jullit ñi su ngeen bëggee baax ñoo leen ngeen nekk ay nasaraan ay chrétien dégg ngeen yéen a ngi dégg semaine bi passé nasaraan yi lan la ñuy wax yéen jullit ñi bu ngeen bëggee jàng suñu école mureeku leen wala dindi leen seen kol yi bu leen muuru sànni leen ko fële ngeen ñëw su ko defee ngeen mën a jàng suñu école gis nga subhaanahu wa taala suñu borom wallahi xaw ma ñan waaye ñun ñii ñun ñii ci jamono bi ñu nekk ñun dañu war a gëm ne alxuraan dëgg la yàlla moo ko wax xaw ma kan nag yàlla ñaata yoon la wax ne wala yazaaluna yuqaatilunakum hatta yaruddukum an diinikum du ñu dañ di leen xeex fekk yéen a ngi nekk julit du ñu tekki seen ngemb mais xam nga tey bu ñu la ne mu doo fi muuroo nga dem tekki kol bi ñëw teg nga sol suba garaam bu ñu ne doo ko fi defee nga woddu ñu ne doo ko fi defee loo dese lan nga dese nga dugg ci classe ne tëll gis ñépp yem amoo koy xam ne kii julit la amoo koy xam ne catholique la wala ab yahud la lu dul nga ni ko comment t'appelles-tu mu ne la je m'appelle Fatima yée nga doog a xam ne kii jullit la il faut nga laaj ko turam mais loolu musiba la te jullit ñi moom lan la yàlla waxoon soo ko gisee rek xam ne kii jullit la nga xam ne ko kii jullit la léegi nag yow ñu dindi la sa sa lépp ñu dindi ko kon jullit ñi war nañu bàyyi xel leen yàlla wax wa qaalu nee nañ kuunu nekk leen huudan ay yahud wala aw nasaara wala nga nekk ay chrétien tahtadu ngeen jub fekk nekk leen loolu du ngeen jub allah mu ne yéen a mën a fen qul waxal yow muhammad balli wóor tey mbir millata ibrahim yoonu yonent yàlla ibrahim hanifan yoon wi jàng jéng ci lépp lu bon jub ci lislaam yoon woowoo gën man muhammad ci yoon woowu laa nekk nekkuma ci yoonu yahud nekkuma ci yoonu nasaara maa ngi ci yoonu millata ibrahim maa ngi ci yoonu ibrahim yoon woowu lan la hanifan dafa jeng ci lépp lu bon jub ci lislaam millata ibrahim ay diini ibrahim alladi kaana alayhi mooy diine ji ibrahima nekkoon ibrahima yàlla wax na ci alquran ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana hanifan musliman wa ma kaana min al mushrikin kon diine boobu moo baax ñoom bu fekkee dañuy tiitaroo ibrahima wala ñuy tiitaroo nasaraan yàlla mu ne muhammad alayhi salatu wasalaam ñoom loolu ñuy wax ay wax rek rek la ci ñoom gëmuñu ko kon yow muhammad alayhi salatu wasalaam na nga xam ne mbaax nekkul topp yahud mbaax nekkul topp nasaraan mbaax mooy nga nekk ci li la yàlla sant te mooy nga nekk ci yoonu yonent yàlla ibrahim hanifan dafa jeng ci lépp lu bon jub ci lislaam wa ma kaana moom ibrahima musta nekk min al mushrikina ci bokkaalekat yi bokkaale xam ngeen ne day yàq jaamu yàlla laaj nañ yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ayu zanbin azam qaala an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi lan la yonent yàlla muhammad tont an tajala lillahi nidd nga defal yàlla morom bokkaale yàlla du ko baale innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee na li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale yow saye waaye waxuma la yàlla du ko baale mooy yàlla dina baale bàkkaar yëpp am des bokkaale bàkkaar yëpp la yàlla di baale bam des bokkaale wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha gis nga inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi waaye wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha kon bokkaale baaxul gis ngeen bokk na ci yàlla tagge ibrahim mooy lan dafa jéng ci lépp lu bon jub ci lislaam moom ibrahima musta nekk ci bokkaalekat yi musta bokk wa ma kaana min al mushrikin borom bi tabaraka wa taala mu ne quulu wax leen yéen julit yi na ngeen leen tontu ngeen yëgal ne leen ñoom yahud yi ak nasaraan yi ñun de aman naa gëm nañ billahi yàlla al imaanu billah lan mooy imaanu billah al iman kam kam arkaanu iman sitta juróom benn al imaanu billah al imaanu bil malaika al imaanu bil kutub al imaanu bil rusul al imaanu bil yawmil axir al imaanu bil qadri xayrihi wa loolu mooy al iman al imaanu billah gëm yàlla suñ ne nit ñi tey li tax nga mën a jël gis ab jullit muy julli waaye nga mun koo jugé ne ko yow sa pas-pas bi wérul wala sa ngëm gi wérul lan moo mun a tax loolu c'est parce que da ngaa gis ci ay jaamu yàllam wala ay waxinam wala ay definam loo xamante ne dafa wuuteeg ngëm yàlla ñun ak ñeneen ñi yemuñu aqiida yahud yi ak jullit yi ak nasaraan yi seen aqiida du benn nasaraan yi lan mooy seen aqiida ci yàlla yàlla am na doom jullit bu gëm loolu est ce que kon am na al imaanu billah amul imaanu billah jullit bu gëm ne yàlla am na doom ah wala yàlla moom nit la day feeñ fi gëm fi waaye tamit jullit bu gëm ne diw mii yàlla la est ce que jullit boobu pas-pasam wér na ah wala jullit bu gëm ne moom ci boppam yàlla la man yàlla laa ba moo tax al imaanu billah gëm yàlla kese ngay gëm yàlla comme nim la ko sante gëm ay melokaanam moom yàlla gëm nekk gi mu nekk yàlla kenn gi mu nekk moom yàlla tabaraka wa taala loolu mooy al imaanu billah nga gëm ay turam yu sell yu set yu rafet yi mu melalal boppam te mu ne walillahi asmaul husna man yàlla dama am ay tur yu rafet su ngeen may ñaan na ngeen ma ci woo udu llaha aw iddu aw addu rrahman ayyamma tadoo falahu l asmaul husna nga gëm ko moom yàlla tabaraka wa taala loolu mooy al imaanu billah xuulu na ngeen wax ne ñun amanna billahi ñun gëm nañ yàlla wa ma unzila ilayna gëm nañ tamit li yàlla wàcce ci ñun li yàlla wàcce mooy ci ñun lan la alquranul karim gëm nañ ko ci suratul baqara jàngoon nañ ko dafa bokk ci sa ngëm pour mu mat foog nga gëm téere bi yàlla wàcce ci yow mooy alquranul karim munoo nekk jullit ne man gëm naa yàlla comme li jullit yi tey gëm naa yàlla ñu ne waaw mais yàlla lii la wax nga ne ah déedéet waaye nag wax dëgg yàlla ñun comme li waa ji waxoon waaw yéen da ngeen ne ay jullit ngeen mu ne waaw ñun ay jullit lañ mu ne waaw lu tax seen jigéen ñi duñu muuru mu ne déet ñun ñee di muuru ñoom sharia la ñuy dund ñun xaqiqa la ñuy dund duñu benn waaw ndax ñoom zahir la ñuy dund ñun baatin gis nga léegi kon ci biir islam am na ñoo xam ne lu leen neex ñu def am ñoo xamante ne ñoom amuñu droit boobu ñoom dañuy jub xocc rek wala yat bi dal seen kaw am ñi nga xam ne lu leen neex def bu leen neexee ñu naan sàngara ñu ne dañ koy soppi meew bu leen neexee ñu am fukki jabar bu leen neexee duñu julli bu leen neexee duñu woor soo waxee rek ñu ne la ñun jullit lañu mais ñun ci baatin lañ nekk yéen zaay yéen ci sharia ngeen nekk ñun ci xaqiqa lañ nekk benn waaye mu ne man dégg naa ñu ne dama dégg jéggi jékki rek ñu ne bàmmeel yi kenn waru faa dem di di di fa ñaan ma ni ku wax loolu ñu ne ma benn waaye bu tudd ibnu taymiya ma ni kuy kooku dégg nga de dafa di kon ñun daal islam bi lu ñu neex rek ñu def lu la neex rek nga def islam du loolu foog nga gëm alquran wa ma unzila ilayna ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum yàlla nee na topp leen li ma wàcce ci yéen suñ gëmul alquran du ñu mën a dund parce que alquran moo ñëw di ñu woon fan la ñuy teg suñu tànk lan la yàlla bëgg ci ñun lan la yàlla namm benn waaye day wax ne kitaabu tawhid dëgg dëgg dëgg ñu ne ko ah mu ne mu ngeen bu ngeen bëgg xam kitaabu tawhid mu ne mooy alquran alquran mooy kitaabu tawhid beneen téere du kitaabu tawhid te wallaay wax na dëgg jullit ñi moo tax bi ñu bàyyi alquran amatuñu tawhid alquran mooy kitaabu tawhid yàlla bi mu tuddee imaamul muwahidina ibrahima ne ma mooy imaamul umma bi ci tawxid fan la fan la fan la jàngalee ne ibrahima mooy imaamul muwahidin ci ban téere ah waaw kon bu ñu bàyyi alquran fu ñu amee tawxid moo tax loo gis nit ñi bokkaale rek nit ñi bañ leen bëggee nax dañoo fexe ba ñu bàyyi alquran bi weeri koor jeexeeg léegi fan ngeen dégg tafsir jeex na xoola gëmloo bi ñu leen gëmloo loolu te lii ñuy def nii dars yi ñuy def nii yonent yàlla Muhammad nii la ko doon defee maanaa téere bi chaque jour jullit da cee war a sëkk mi ngi mel ne rek lampe torche loo koy dee di nit chaque jour am na ñoo xam bu ñuy tëdd sax mi ngi seen bopp laal kañ ngay bàyyi torche bi su leeree rek mais soo gisul loo xam rek jëli torche bi kon lampe la boo xamante ne dafa war a nekk suñu kanam du fay mukk warul fay su ko defee ñu xam ne dañoo war a topp wa ma unzila ak li nga xam ne dañ ko wàcc ilayna ci ñun li yàlla wàccee ci ñun bu ñu bëggee nekk ci islam foog ñu gëm ko wa ma unzila ak li yàlla wàcce woon ila ibrahim ci ibrahim ibrahim xam ngeen mooy kan abul anbiya xalilullah xalilurrahman ah wa ismail ak li yàlla wàcce ci ismail ismail doomu ibrahima la ibrahima mooy baayam kan moo ko jur ñaareelam bu tudd hajara fan la dëkkoon makkatal mukarram wa ishaq ak li yàlla wàcce woon ci ishaq ishaq tamit doomu ibrahima la kan moo ko juróon aawom bi ki tudd saara moo ko juróon waaye wa yaqub ak yaqub yaqub doomu kan la doomu ishaq yaqub ishaqa moo ko jur yaqub moom la ñuy woowee baayu yahud yi moom moo jur fukki doom ak ñaar yooyu ngeen dégg ci alquran te yusuf bokk ci moom mooy yaqub wal asbaat ak sët yi mooy ñooñu ngeen di dégg sët yooyu fukki doom ak ñaar yooyu ak jigéen ña ca bokk mooy seeni sët ñii ñépp ngeen gëm li yàlla wàcce ci ñoom ndax li yàlla wàcce ci ñoom du lenn lu dul lislaam li leen di wan ne lislaam la leen yàlla jox yonent yëpp ñoo bokk programme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yëpp ñoo bokk benn diine seeni baay moo wuute seeni baay yonent yi baay yee wuute wax na ci hadis bi nahnu maashara al anbiya awlaadu allaat diinuna waahid al allaat awlaadu rajulin min niswatin satta ñun yonent yépp diinu naa waahid sunu diine benn la sunu yaay ñoo wuute sunu yaay yaay la ñu wuute ay yaay mais seen diine benn la seen sharia moo wuute mais seen diine benn la programme bi lan la mooy tawxiid na ñëpp jébbalul yàlla tabaraka wa taala nekk jullit mu ne wa ma uuti ak li yàlla joxoon Muusa yonent yàlla ba tudd Muusa Muusa ibnu Imran yàlla nga ko yónni woon Égypte ci kàccoor bu tudd firawn wa isa ak isa doomu mariam mooy ki juddu te amul baay ñi ñëpp wa ma uti ak li yàlla joxoon annabiyuuna yeneen yonent yi leen jiitu ñoom ñëpp la leen yàlla indiloon min rabbihim ñu ngi ko jële woon ci seen boroom ñun julul ñi dey laa nu farriqu du nu tàqale bayna ahadin minhum diggante kenn ci ñoom ñun duñ tàqale ñun yonent yëpp lañ gëm moo tax ba duggee kër jullit yi nga fekk fa Muusa fekk fa Isa fekk fa Ishaq fekk fa Yaqub fekk fa Muus Ibrahim fekk fa Ismail fekk fa ñëpp nga fekk leen fa ci kër jullit yi moo tax dëgg-dëgg bu fekkee dañuy wax jullit jullit moom moo baax xoolal doo dugg mu kër chrétien fekk fa Muhammad wala ah wala donc du du am mukk wala kër yahud nga dugg kër jullit fekk fa ñëpp kon ñun ñooy ñun ñooy rassembleur yi benn waaye dañ ko ne wenn yahud dafa ne jullit julli wenn jullit est-ce que jullit dina dugg àjjana beneen chrétien daan ne benn jullit est-ce que chrétien est-ce que jullit dina dugg àjjana mooy leen xaw ma ndax dinañ dugg àjjana wala duñ dugg àjjana waaye yéen moom bu ngeen duggee ñu dugg bu ngeen bu nasaraan yi duggee ñu dugg yahudi bu ñu duggee ñu dugg waaye ne ko lu tax mu ne ko ñun gëm nañ seen yonent dangaa gëm Isa mu ne ah mu ne man gëm naa Isa dangaa gëm Moussa mu ne waaw mu ne man gëm naa Moussa mais man nag ñun buñ duggee yéen am ngeen problème waaye ñu ne ko lu tax mu ne yéen gëmu leen Muhammad Moussa fekk mukk benn jullit bu toog di xas Moussa wala Isa mos ngeen ko fekk lu tax laa nu farriqu bayna ahadin minhum ñun du ñu tàqale yenn saa yi sax jullit yi dem feet di feetu di feetu 31 décembre wala 24 décembre soo waxee ñu naan bisu tay bi ci la ab yeneen du ma ci judd ah mun nañoo feetu gis nga. dafa dire que ndax bëgg laa woon ne Allahu subhanahu wa taala dafa bokk ci pas-pasu jullit yow yonent yëpp da nga leen di gëm laa nu farriqu du nu tàqale. bayna ahadin minhum diggante kenn ci ñoom wa nahnu ñun lahu muslimun waaw gis ngeen de wa nahnu ñun lahu ñeel yàlla muslimun way jébbulu lañ ñun dañoo jébbulu ci yàlla gis nga baatu muslim mooy baatu lislaam yonent yi lan lañ wax wa nahnu lahu muslimun ñun lan lañ ñu wax wala tamutunna illa wa antum muslimun programme bi benn la bu kenn dee dajeeg yàlla lu dul jullit nga jàngoon ngeen ci aaya bu mujj bu njëkk ci kaw bu jàngoon ci weeru koor bi wa wasa biha ibrahima banihi wa yaquba ya baniya inna allah astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun gis nga yàlla li mu wax rek mooy bu kenn dee dajeeg man lu dul da ngaa nekk jullit ñun ñi loolu lañ ñu wax wala tamutunna illa wa antum ittaqullah haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun bi ngay dee daal nekkal jullit beneen religion boo dee wóorul islam rek moo ci wóor te mooy nga jébbalu ci yàlla tabaraka wa taala nekk jullit mu ne moom yàlla tabaraka wa taala fa in amanu su fekkente ne ñoom gëm nañ bi misli ma amantum bihi comme yéen li ngeen gëm ñoom bu ñu gëmee yéen li ngeen gëm kon faqat yi daw kon ñoom jug nañ sànq aaya bi ci kaw lu mu waxoon ñoom lan lañ ñu waxoon kunu huudan aw nasaara su ngeen bëggee baax yéen jullit ñi nekk leen yahud wala nasaraan ngeen baax ñoom loolu la ñuy waxoon yàlla mu ne déedéet fa in amanu bi misli ma amantum bi ñoom bu ñu gëmee comme yéen li ngeen gëm ah attention de ci ngeen fii yahudi ak nasaraan la yàlla di waxal yàlla kan la doon waxal moom ah muhammad la doon waxal ak fa in amanu ñoom bu ñu gëmee yahud ak nasaraan bi misli comme ma amantum ñan la jullit yi muhammad ak sahaaba yi ñu doon jullit yi jamono boobu faqad ihtadaw kon day jub nañ léegi nag ñun jullit ñi bu ñu gëmee lu ñi a gëmul woon nag est-ce que ñun kon danañ jub moo tax nit ñi mënuñoo jub bàyyi leen xel li ma leen wax de ñun dañoo gëm lu muhammad gëmul woon ak sahaaba yi est-ce que kon ñun mën nañoo jub ñuy jube muhammad dafa gëmoon ne julli dafa war a julli nga gis tey jullit bu gëm ne jullit warul julli am na jullit boo xam ne moom mun naa bañ a julli teggil nañ ko ko am na jullit boo xam ne warul woor teggil nañ ko ko am na jullit boo xam ne warul aji màkka teggil nañ ko ko am na jullit boo xam ne moom façon bu nekk am na moom yàlla la am na koo xam ne tarixa bu mbokk ku ko gis bisu ajjuma wala bisu altine da ngay dugg aljanna waxuma sax da ngay dugg àjjana waaye da ngay yóbbaale sa juróom ñaar fukki njaboot ak sa goro sax day dugg àjjana sa goro dafa mel ne àjjana moom benn kër la goo xam da ngay yore jox ci àgg bi ubbi ana diw ñu ne mu ne mu ne duggal ana diw duggal waaw waaw waaw kii sama xarit la na dugg te yàlla mu ne yahud ak nasaraan fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ñoom daal li tax ñuy baax loolu ñu naan njub bu fekkee dañoo bëgg a jub nañu xool rek ndax ñoom yéen li ngeen nekk ñoom ci lañ nekk kon képp koo gis ci jullit ñi nekkul ci lu Muhammad nekkoon ak sahaaba yi ci réer la nekk te ku nekk ci réer mënoo jub parce que yàlla na ne Muhammad salaa salaam ak sahaaba yi ñoom ñooy ñuy jub lan la yàlla wax Muhammad wa in tuti uhu tahtadu mu ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ku la nangu topp rek nga jubal ko ci yoon bu jub bi ku la nangu topp léegi nag bu fekkee yàlla moo ne yonti yàlla muhammad ku ko topp jub nga gis koo xam ne dafa gëm ne programme bi muhammad indi dafa metti non non yéen li ngeen indi dafa metti kenn du nuyu jigéen kenn du tox kenn du naan wa doo sax njaaloo sax même benn fan non mais dafa metti mais mais mais ñun mënuñu loolu wala la doo dégg loolu tey ci dëkk bi ñun il faut ñu laal tuuti non il faut ñu laal waaye nag ñaanal leen ñu quoi ñaanal leen yéen nekk ci dëgg na ngeen ñu ñaanal rek ñaanal leen ñu rek yàlla ñaan boo xamante ne yow yow mi wax sax gëmoo ko ku la bëggoon na xaar ma ñaanal la tey nga baax sax de dana xaaral tuuti mënaguma baax nañ xaar tuuti may ma tuuti da ngay gis tey ku war a dem màkk ñaata nit ñoo war a dem màkk Sénégal nii rek yow doo tax demoo màkk non man ma demee màkk instant bi ma nekk jeune mais non ma ñëwaatee fii di toj ay kaas xaaral tuuti nga gis ay maire ay jigéen yéen lu tax du ngeen aji non ñun mënaguñoo aji léegi c'est parce que ñun pareeguñu il faut ñu kii ba ci kanam parce que dañu jàpp ne boo demee ñëwaat da nga war a jub waroo dëng mais même boo demul da nga war a jub yàlla santul kenn mu dëng nekk ci li la neex ba nga xam ne dee jege si na nga daw moo tax lan ngay gis chaque jour mbetteel chaque jour mbetteel chaque jour nga gis mbetteel chaque jour bu ñu ne nit dee na rek nga gis sénégalais am mbetteel c'est parce que chaque jour nit day dee foo xamante ne foogee wuñ ko woon chaque jour parce que du ñu préparé dañ jàpp ne da nga war a nekk ci fo ci caaxaan ba dee ñëw kon njub allah subhanahu wa taala définir na lan mooy njub ñun ñu toog fii suñu bëggee xam ne dañoo jub wala jubuñu nañu xool ndax ñun ña nga ca la muhammad sallallahu alayhi nekkoon ak sahaaba yi su fekkee ñu ngi ci li muhammad nekkoon ak sahaaba yi ñun jub nañ bu fekkee nekkuñ ci dañoo dëng ndax yàlla nee na fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ñoom yahudi ak nasaraan yi bu ñu gëmee yéen julit ñi la ngeen gëm bu ñu nekkee ca la ngeen nekk faqad ihtadaw kon day ñoom jub nañ suñ ci nekkul nag jubuñ kon jullit bu ci nekkul nag li ko juboo yàlla mu ne wa in tawallaw bu ñu wanee ginnaaw lànk bañ a nekk ci mbir mi na nga yëg ne fa innama hum naka ñoom fii shiqaaq ñu ngi ci xilaaf ñu ngi ci wuute wa firaaq ñu ngi ci tàqalikoo na nga yëg ne ñu ngay dem di tëral ay pexe pour xeex ak yow waaw waaw dëgg la képp koo gis nga naan ko yàlla nee na yonent nee na mu lànk même bu dee ci koñ bi ngeen dëkk même bu dee ci jàkk ji yàlla nee na yonent nee na mu lànk ñu wax ba mbooloo mi tas bu demee ma nga lay fexeel sikk nekku ci waaw ma ngay fexe yow li nga bëgg a wax ci jàkk ji wala li nga bëgg a wax ci koñ bi bu mu fi yaatu mu ngi lay jéem a xatal bu dee yahudi ak nasaraan yi moom dañuy dem te tëral seen i étude léegi ak seen i projet nuñ la faagaagalee taqal la leen ne la terroriste nga wala islamiste la nga wala fondamentaliste la fondamentaliste la jël nga denc la ci kaso bi nga faat wala ñu rey la ñaata borom xam-xam la ñu rey ci àddina bi ñaata daanaka li tax l'islam bi mel nii mooy ñi jógoon pour liggéeyal yàlla ci àddina bi yëpp tudd ay jullit dañ leen rey ni ñu reyee ci ay arab la ñu reyee ay africain la ñu reyee ay tubaab démb laay seetaan démb xaw ma barki démb laay seetaan benn reportage bu 2STV teg Malcolm X ñuy wane film bi di wane bi muy tuubal Casis Kale boxeur bu mag boobu tudde ko Mohamed Ali fu mujje dañ ko rey gis nga mani ba Amérique ba fu mu nekk partout dans le monde li tax l'islam bi mel nii mooy tet yëpp dañ leen di rey chaque jour rey rey ba léegi nii Afrique tamit loolu moo ko tardeel Afrique rey rek ñaata nit di ñuul lañ rey ku mus a jóg ci Afrique bëgg a tekki bëgg a peuple bi nga jiite tekki lan lañ lay def dañ lay rey boo dee jullit boo dul jullit dañ lay rey ñu wax man àddina moo tax dëkk moo tax dëkk bi mel nii boo koŋ koo fi gis ñu bàyyi ko fi rek moo ñoom a bokk programme ñoom lay liggéeyal ñu bàyyi ko fi mais ku jóg nekk jullit jëm ci yàlla ñu rey ku jóg bëgg liggéeyal nit ñi sax ñu rey ko mën ngeen cee jël ay tur yu bëree bëri ngeen indi ko bu ñu doon wax léegi léegi ku nekk na indi benn tur ku nekk léegi dina indi kenn kuñ ci rey kon subhanahu wa taala sunu borom moo nu wax dëgg bu nu noppee jëfandikoo sunu téere borom ci cànkute la ñuy nekk al alkande ñoom wa in tawallaw bu ñu wanee ginnaaw lànk bañ a gëm yéen lu ngeen gëm na nga yëg yow muhammad yaag julit ñi nga àndal fa innamahum naka ñoom fii shiqaaq ñu ngi ci wuute ñu ngi ci tàqalikoo ñu ngi ci ay pexe pour xeex ak yow waaye su boobaa na nga yëg ne fa sa yakfikahumullah yàlla dina la musal ci ñoom baat bi kalima bi moo gën a gudd ci kalimay quraan yi baat bi muy alquraan yi muy moo bi moo ci gën a gudd aaya yi fa iza tadaayantum moo ci gën a gudd kalima yi baat bi moo ci gën a gudd fa sa yakfikahum yàlla dina la aar yàlla dina la protéger kon kay jullit waratul tiit yàlla ne la gëm ma ku jóg jëm ci yow man yàlla maa lay aar warati ngaa tiit kon lu tax ñun ñu tiit lu tax nangu ñu nekk ay jullit lu tax gëmuñu ne yàlla moo nuy aar fa sa yakfikahumullah yàlla moo lay protéger ci ñoom keroog ba yonent bi gëmee lii moom kenn la yàlla moo ne ko wallahu yaasimuka min annaas yàlla moo lay aar lu nay def nañ ko embuscade nañ ko possédé nañ ko xeex nañ ko exilé nañ ko lu nekk mais gis nga mu ne keng rek dëkkër fan la mujj mooy diineem bi tey ñun jot nañ ci su yonent bi nooyoon saxaaba yi bu ñu nooyoon mbokk yi ñun du nekk fi di julli tey du ngeen nekk fi di jël dars parce que diine bi da du yegg si fii yonent bu doon yox yox yi wala toog rek daan ne ah yàlla man de woote naa waaye ñi dañoo dëgër boobu jaratul may woote mais ab yonent su ko yàlla yónnee du tekki kaalaam du simmi dàllam lu dul message bi jàll ak moyen bu ko ci mën a fekk ak lu kirim bu ko ci mën a fekk day dem def message parce que yàlla moo ko yónnee naka noonu boroom xam-xam yi naka noonu jullit yi naka noonu ñi gëm yàlla suñu gëmee yàlla dëgg dañuy war a xam ne tëdd na la war a tulee Sénégal rek ngay gis ay borom xam-xam yuy nelaw parce que xamuñu li ñu yenu Sénégal rek laa wax nga gis ay borom xam-xam yi ñuy tuddee ay kilifa diine ñuy nelaw xamuñu peuple bi lu ñu nekkee xamuñu julli ji lu ñu nekkee c'est parce que xamuñu mes responsabilité bu nu yenu waaye yonent yi kenn ci ñoom daawul nelaw ba xandoor mës ngeen dégg yonent bu biddanti wala borom xam-xam bu am tawxiid bu biddanti bëriwut de ñoom ñëpp dañu ngemb takk di liggéeyal yàlla tabaraka wa taala ba li leen ci fekk ci yoon yu fekk leen fi parce que fa sa yakfikahumullah yàlla moo lay aar du ay téere moo lay aar du ay gisaane moo lay aar du ay xarfa fuufu ah yenn saa yi nga dégg ñu ne ah yow li nga wax ni gars yi dañ lay jógal de jógal ci sa bopp jógal ci sa bopp balaa gars yi di la jógal jógal ci sa bopp balaa ñu lay jógal wala Sénégal ni ñu gëmee xarfa fuufa ah ni ñu gëmee liggéey ni ñu gëmee njabar fan yi boo déggee journaux yi loolu ngay dégg ñu ne dafa am ministre bu dee dañ ko liggéey am na beneen ministre bu dee ancien ministre bu dee fan yi ñu ne dañ ko liggéey mun naa wax seen tur de ñu ne Sénégal liggéey rek dégg nga dégg ngeen dégg ngeen démb tey démb ci guddi VDN bi lu fa xew ñaari xaj yuy dund lañ fa suul déggu leen loolu déggu leen ko tey ñaari xaj yuy dund ñu ne comme élection yi commencé na fi mu nekk ni xarfa foofu yi commencé na njabar rek jullit yoo xam ne gëmuñu ne fasa yàq fii ko xumullaa yàlla moo lay aar yenn saa yi sa nga dégg kenn de ku koo bokkal jàkk mu ne la wa yow est-ce que di nga tàkk dara nga ne non mu ne di nga naan nga ne di nga sax non yow da ngay xaru yow billahi ci danger nga nekk lan mooy la ban danger nga nekk lan la ana yàlla ana yàlla ayna allah ana yàlla ku yàlla aar kan moo la mën a dara wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yàlla nee na ku jàpp ci man ma doy la xam nga suñu problème mooy lan mooy tawxid lañu amul dafa jafe nag dafa jafe te mbir bu sew la mais bu la ko yàlla yombalul ci ci ci ay musiba rek ngay nekk ci musiba rek ngay nekk mbokk yi yàlla tabaraka wa taala moo wax waxam du fanaan àll suñu gëmul li nga gëm jubuñu danañ jóg pour di la xeex danañ jóg pour di la fexeel danañ wuute ak yow waaye su boobaa na nga yëg ne bul tiit bul jàq fa sa yakfikahumullah yàlla moo lay aar yàlla moo lay protéger wallahu yàlla assami mooy kiy dégg seeni wax al alim mooy ki xam seeni pexe kon bul tiit ndax am na fi ku yàlla xamul ci li nga nekk ñun ñëpp yàlla xam na ci lu ñu ne assami yàlla mooy dégg suñu mbir yëpp al alim yàlla xam lépp kenn kooku mooy yàlla moo xam lépp moo gis lépp moo dégg lépp keneen kooku amul asami yàlla la al alim mooy yàlla asami moo dégg ñëpp waxuma la mu yemale ko ci doomu aadama yi waaye taw yi taw yi di jóge ci kaw asmaan di daanu ci suuf sax yàlla ngi koy dégg subhanahu wa taala al alim mooy expert bi xam lépp dara nëbbutul ci moom laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama amul lu nëbb ci kaw suuf ak ci biir suuf ak ci asmaan lu yàlla xamul amul mu ne sibghatallahi cuubu yàlla cuubug yàlla jullit dafa war a dund cuubug yàlla wa man ahsanu ana kan moo gën a rafet min allahi ci yàlla sibghan sibghatan cuub loolu mooy lan cuubug yàlla maanaam mooy defar bi yàlla defar doomu aadama diinuhu lazi diinam ji nga xam ne taharana bihi zahiran wa batinan diinam ji nga xam ne daf ko indi pour diine ju laabal nu xoolal ngay gis benn waay boo xam ne ivorogne la ci sàngara ivorogne day naan bay lang di naan sàngara ba làmmiñ bi damm ñu jël ko dugal ko ci lislaam waa ji romb la ñëpp waa gis nga xam ngeen kii ki ki mooy diw ñu ne ñëpp tiit nga gis benn waay boo xamante ne li doon métier ci àdduna mooy agressé rey ay nit ñu jël ko ndeysaan tuubloo ko tey ba mu nekk ci kanamu jàkka ji di bayaan ku ko ku mu waar nga jooy kan moo defar loolu loolu mooy sibghatallah loolu mooy cuubu yàlla tey ci àddina bi di nga dégg ay ponkal yoo xam ne ay ngand yoo xam ne ci musiba rek lañ nekkoon mais keroog bañ leen jëlee dugal leen ci lislaam ba lislaam defar leen ñëpp ñee leen bëgg a mel ni ñoom am na partout dans le monde boo demee France boo demee Angleterre boo demee Pakistan partout ba fii ba fii ba fii ci Afrique ay nit yoo xam ne la ñu nekkoon démb kenn bëgg ko mais tey li ñu nekk ñëpp bëgg nañ ko lu tax xool waxoon naa sànq Kazis Kale ba mu tuubee tudd Mohamed Ali xoola Mike Tyson ah xoola Yusuful Islam Christopher tuub mujj tudd Yusuful Islam tey bu ñu la woneen poster am wala ñu woneen la ko télé écran mu toog da nga naan su kii benn wali yu yàlla la loolu mooy sibratallah mooy cuubu yàlla islam day defar nit moo tax nit ñi bu ñu bëggee defaru nañ ñëw ci lislaam amul leneen luy defar doomu aadama lu dul lislaam yàlla mooy jël nit cuub ko cuub bu ñu jëloon yére bu weex bi ma sol dugal ko ci ndox ci cuub nu muy def day changé noonu la lislaam di def nit nit cuub di changé yére noonu la lislaam di changé nit ku nekk ci lislaam changé woo nekk goo ci lislaam ku nekk ci lislaam ba pare nekk criminel nekk ivrogne nekk njaalookat di rey ay nit nekk criminel nekk goo ci lislaam dundoo lislaam da ngaa da nga koo jege rek duggagoo ci biir boo ci duggoon ba mu cuub la ni nga jëlee tisi bi dugal ko ci biir bëri ko cuub bi nga génne ko yére bi kenn xàmmeetu ko nga mun koo génne yëkkati yére bi ba ci kaw daane yére bi ku xam ban couleur la woon ma fay la kenn du xam que yére bi ban couleur la woon ndax cub bi ni mu ko changé noonu la lislaam di soppee nit moo tax mu ne sibratallahi cuub ak yàlla lan mooy cuub yàlla mu ne diinuhu diineem allazi bi nga xam ne taharana bihi zahiran wa batinan fa taharat asaaruhu alayna kama yazharu asaaru sabri ala sawbil masbuux mu ne diineem bi diineem bi nga xam ne moo ñuy laabal zahir ak baatin diine bi nekkul day defar nit ci biteem rek mais diine bi ci biir nit lay njëkk a defar da ngay tëdd léegi-léegi bi nga jullee timis ba léegi léegi-léegi bi nga jullee timis ba pare dem nga ñibbi nga jékki-jékki fi nga toogoon doon seetaan tale wala nga toogoon ci sa wetu soxna wala nga teegoon doon def dara nga jékki-jékki ji ngi ne allahu akbar allahu akbar saxel ci lu mu dem ah gée de jot na xaaral ma jóg dem jàppi dem julli ci gée gis nga ah bu fekk gis nga nu mu lay defaree fajar jot nga nekk sa kawlal nga dégg ñu ne asalaatu xayru min annawmi nekkoo fa kenn amul kenn ku lay garder amul benn police amul benn gendarme da nga dégg asalaatu xayru min annawmi portable bi sonné réglé nga ko nga jóg sangu sol sa yére jàpp jubal jàkk gis nga ni mu la defaree gis nga loolu zahir la dafa feeñ mais am na baatin ci ñun fii kan moo fi naan sàngara lu tax da ngeen amul lu ngeen ko jënde aha kay da ngeen xamul fu ñu koy jaayee aha kay xamul leen fu mu nekk aha kay lu tax soxlawu leen ko parce que xam ngeen ne baaxul yàlla moo leen ko tere. amul benn contrôle amul benn gendarme bu ñëw naan ana waa ji génn na fan la jaar ban mbedd la jaar xaaral ma déedéet gis nga yàlla dafa defar sa conscience ba mu tranquille ba nga xam ne yow sàngara sàcc lépp yaa ngi góorgóorlu pour di ko sori parce que xam nga ne baaxul soo toppee yoon woowu nag di dem. soo toppee yoon woowu di dem wàccoo di bàyyi li yàlla araamal di def li yàlla santaane da ngay dem ba nga am cuubug yàlla sibratallah ba yow ci sa bopp sax léegi ku la jege nga cuub ko da ngay dégg ñu ne ah jàkka ji nekk fii ku fa dem changé damay dajege ñu ne yii seen jàkka ji dafa garaaw lan moo garaaw lu fi nekk lu fa nekk li dégg ñu ne mais rastamaan boobu sax léegi maa ngi koy gis muy julli kaay boobu mais daawul julli yii mais def ah mais loolu mooy diine diine mooy nga yor jikkoy dugub dugub bañ koy ji ci tool bi ba bañ ba muy ñor ñu koy def ci ay saaku di ko indi ci kër gi fu mu romb rek ruus fu mu romb ruus même bu ñu ko wàccee ci buntu kër gi bala ñu koy dugal ci biir magasin bi suñ ko dugalee pare boo ñëwee ci buntu kër gi fi ñu ko wàcce woon di nga xam ne fii lan lañ fi doon wàcce dugub kenn mënut a fexe ba doo du fa ruus loolu la jullit war a mel ci yu baax loolu mooy cuub ak yàlla day day feeñ zahir ak baatin mu ne waman ahsanu ana kan moo gën a rafet min allahi ci yàlla sibra ni muy defaree kan moo gën a baax ci yàlla nu muy defaree kan moo gën a baax pro yàlla programme bu muy defaree nit kan xoola abubakrin saddiq ah xoola saxaaba yi alxuraan da leen fekk ñuy naan sàngara di mandi ba ñuy julli ñuy yàq alxuraan qul ya ayuha alkafirun abudu ma taabudun wa antum abiduna ma abudu wa ana abudu ma abadtum yee yàlla mu ne bàyyi leen sàngara alxuraan fekk gaa yi am ay conteneuru jabar alxuraan fekk ñuy agressé am ay agresseur alxuraan di leen defar di leen defar ba adduna bi yépp suñ ne abu ñaata abubakar sadiq kan moo ko xam fii ci ñun dañ ko jàng rek ñaata ci ñun fii ñoo ko tuddee doom gisoo ko xamoo ko mais da nga dégg ndeysaan dafa àndoon ak yonent bi baax ba mel ne yonent bi ñu tuddee ko sa doom Omar ku ko xam fii ci yéen kan la bokkal ku yor numéro téléphone am yaa ngi ni tuddee ko sa doom Ousmane ibnu Affan Ali ibnu Abi Talib Bilal ibnu Rabah ci jigéen ñi tamit noonu la parce que yonent bi moo leen defar ban programme la leen defare mooy lii wa man ahsanu min allahi sibra kan moo gën a mën a defar yàlla moo tax ku bàyyi lu yonent bi indi da ngay dëng lan nga gis fii tey ay tarixa yoo xam dañuy réeral ay nit daf leen ay dof ah ay dof lañ leen def ay dof day jël nit daf ko dof koo xam dafa war a nekk nit ñu jël ko daf ko dof am na ci koo xam ne tey bu ñëwoon sa kër sax ne la dama bëgg sa doom nga may ma ko nga ne ko xoolal waxuma la sama kër mais sama buntu kër sax bu fi taxawati am parce que xam nga ne yow kii doo ko may jabar mu wala wax leen te pourtant nee nañ jullit la mais niñ ko defaree moo baaxul am na koo xam ne jullit la sax bokk leen xëy na yoon waaye bu ñëwoon nga ne ko doo ko ne du ma la may doo ne waa dégg naa li nga wax après may parce que melokaan bi mu ñëwee donc koy rus a jaanni rus koo toroxal loolu mooy defar yàlla mooy defar yàlla nee na kenn gënumaa mën a defar wa man ahsanu min allahi sibra wa nahnu ñun lahu ñeel yàlla moom abidun ñun moom la ñuy jaamu comme yàlla moom mooy defar programme am moo baax est ce que kon dinañ di yell ci ñun ñu bàyyi loolu di wëri leneen tukulóori nee na sada ñaago ñaago dokkoowo sada moolo moolo jàmbaaro kon nani du booy ñaan ñu ne ñaanal ku am ñu ne booy làqatu ñu ne làqatul ci jàmbaar li booy ñaan nga fekk koo xam ne amul dara nga ne ko may ma da ngay indi sama problème arab yi nee nañ faaqidu shay ku amul doo joxe yàlla moo mën a defar kenn gënta mën a defar yàlla comme yàlla moo mën a defar ba nit baax nit amul fulla nit warul am droit dem ci keneen di ko jaamu mbokk yi kon ci gàttal lii mooy dar sa tey bi yal na yàlla incha allah ñu góorgóorlu ñeenti aayal incha allah samedi prochain bu ñu ñëwee ñu tari balaa ñu commencé darse bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu